salaatun si fi kulli shay'in wa fi safar hamani alamani waaye weneen bayta ngi it muy ñaan borom bi subhaanahu wa taala ne yàlla nu may ak texe goo xam ne day sax wa awlinaa saadatan taduumu texe léeg mu gaar nit mu ne ci xéewal as ndiir waaye jékki-jékki xéewal gan naa ko fa liasu billah yàlla na yàlla ngi defal saada waaye na nekk saada daaima nekk texe goo xam day sax wal fadla yàlla na ñu may it ngëneel ñu gën jaam bi baax baax na de waaye gën a ko gën boroom yitt yu kawe yi doxuñ jëm ci baax kese waaye dañuy dox jëm ci gën moo tax sëñ bi loolu yow mi nga xam ne yow ak sa nguur moo sax yaa am nguur goo xam ne mësu mësta dañ mësta dañ te du dañ ba mukk yaa man mulkuhu yaduumu nguur gu du nguur yàlla rek ab diir la ab diir lay am jeex yow mi yor nag nguur gu sax maa ngi lay ñaan nga defal ma saada goo xam ne day sax waaye defal ñu fadlu mooy ñu gën ñu baax ñu am yiw lu baax lu ne kuñ ca natt rek xeb boppam